bilangin tuh yow mbokk yee xarit yi ñu ngi amaan mbégteeg kontaan tey jàkkaarloo ak yéen ci site bu mag bi di Lutte Motivation ah, ñu ngi nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel ñu ngi lay jaajëfal tey nag ñoo ngi fi nga xamante ni mooy benn tali cherche un très grand champion muy Boy Boy Dakar nekk ci làmb ji def ay preuve am su bëree mu neex bu feccee mu neex moom lañ seet si fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ni mooy actualité làmb fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ni mooy potentiel adversaire yi lu tax gars yi jëluñu ko loolu yëpp dinañ ko waxtaanee le grand champion maa ngi lay ziar waaw delloo ziar gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa axlu làmb euh, di jiital nuyoo bi aussi tamit euh, suñu président Bira Sène suñu président waaw di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuy tamit suñu président staff ay Mbacke Niass di nuyu sama papa Père Diakhaté Mbaye Faye Pek ak suñu waa écrit yëpp bàyyiwuma kenn képp ku am combat foofu noonu yàlla ko yàlla may ndam ku amul combat yàlla ko yàlla may combat may ko ndam di nuyu tamit sama coach Baye Gueye ak maam Doudou waaw di leen siyaar bu baax a baax a baax du nuyu waa salle bi yëpp bàyyiwuma kenn waaw. Euh, si salle bi ñu la fekk nii ban salle la. waaw bi mooy Dixar fitness. waaw fii daal la ñuy rootee. waaw di gërëm baay bu baax a baax a baax a baax. lépp lu ma mel moom la quoi. parce que tamit moom may teg coono yoo xamante ni damay fayeeku. waaw lu war a bi yeneen salle yi nekk fii nga choisir salle bi. waaw parce que su suñu nit la aussi. waaw parce que tamit su toujours daf ñuy motiver. daf ñuy motiver di ñu teg si yoon tey rek moo ma yee mu ne ma ñëwal entraînement kon kooku noonu da war a topp bëgg-bëggam quoi waaw dafa saa dafa dafa gën a bëgg sax lu may def waaw moo tax foog ñu topp ko ndax ñu mun a roy comme suñu yeneen morom yi waaw. léeg ñuy dégg ay Boy Dakar ñoo ngi dox combat mu diw ñu ciy dégg ay écho yoo xamante ne dem nañ ba sori mais finalement dañuy dégg kombaa bi taxawul yooyu boo koy gis lan la lay def. waaw man damay mujjee étonné rek ma ne man xanaa man man léegi bokkatuma ci làmb ko waaw parce que tey jii da ngay dem ba combat nar taxaw nga gis benn benn euh, kii nii manager ñëw waroo jël diw waroo jël diw xam nga loolu day yàq làmb. waaw nañ bàyyi loolu noonu ñu bàyyi booy yu bëri ak seen xel. waaw ak seen conscience tranquille mooy lu ma lay wax léegi rek dañuy tëbal booy. waaw te loolu moo nekkul yoon. Mm-hmm. balaa ngay xam talent booy dëgg ñu bëree seen biir. Mm-hmm. waaw su su boobaa si la ñu xam talent euh, xale yi mm-hmm. mais tant que ñu ngi leen di jël di leen jox ay pas rek. lamb du am. mais est-ce que euh, newul tamit gars yi léegi affaire de mafia la ñuy dawal yenn promoteurs yi mobilisation la ñuy si ci li nga xamante ne mooy seen lamb tamit. waaw dëgg la ñun de ñàkkuñu mobilisation su nekkoon sax dañ ko ñàkk ñu mën a wax. mais ñun ñaaxuñu ko. parce que man tey su ma xewlee benn tali Grand Dakar Biscuiterie ba waa saalum ñoom ñëpp ay daw ñëw fii nii. waaw kon waa Casamance ñëpp ñoo jëw jàpp sama combat kon man manqué wu ma dara. waaw kon gars yi war nañ mën a ñëw fii xam nga. ñu ñu ñu xool mbër yi ñu jàppale leen tëggal leen ay combat yu yu am valeur quoi. am na solo ñu doon dégg ay rumeur ah, ah, sa combat ki nga xamante ne mooy Liss Ndiago Mor Kankang ñeneen ak ñeneen dem nañ sa ba di la laaj ci Liss Ndiago nga ne doo wax si moom yow lu tax duñu wax ci Liss Ndiago lan mooy problème bi da ngaa am ak moom problème wala. non Liss Ndiago amuñu problème. Mm. waaw booy bu cool la moom. waaw dafa fekk ne. xam nga gars yi ñoo bëggoon combat bi. am ñoo xam ne bëgguñu ko. mais loolu passé na passé na. mais passé ba tey. non passé na parce que mënatuma si wax. moom ah. parewul pour bëree xam nga man tamit man tamit mooy loolu quoi. mais mbër yàgg naa taxaw ne kii du ma bëri moom mais promoteur bu ko seetee fay xaas de bëri mais gars yi ñoo bëggul bëggatuñu. waaw gaa yi ñoo bëggatul rek loolu la. dafa nga da nga seet da nga dem ñu xoolal la combat bi baaxul nga bëgg génnaa si li nga xam ne. non man promoteur woowu ma hmm. waaw. benn benn yoon la ma promoteur woo ma ne ko amul benn problème naa ko may chance mais loolu noonu comme que gars yi bëgguñu ko ba gars yi di dal sama kaw. léegi damay bàyyi parce que gars yi lu ñu bëgg rek loolu laay def. da nga bëgg génn si tarkindaay. non du dugguma si sax parce que euh, keroog stade dañoo wax dama ko doon laaj te laajuma ko. mais da nga faa dugg. waaw bëgg naa faa dugg de. mais ku ma waroon bëreel am na combat. Hmm. amaana damay bàyyi ba mu pare ma mun a bëri moom. kan nga waroon bëre. waaw Tidiane Faye euh, kii Tidiane Faye. Ah. waaw Tidiane Faye laa bëggoon eh, bëre. mais fii naar soogaas la daan. waaw kon ngaa a laal rek moom. non non mais instant yi moom dëgg yàlla lis moom nañ bàyyi mu jàll rek quoi. booy la mu ngi def ay preuve. waaw dëgg la da nga a bëre. non nañ bàyyi mu jàll rek garaaw. loolu la ñuy bàyyi mu jàll. non nañ bàyyi rek. combat bu neex la booy la. non gars yi ñu ko bëggatul. ñu ko sawaroo ci booy non du loolu sax lis jàmbaar lis kii nii lis njaago jàmbaar la. daay la jël. non garaaw loolu yëpp garaawul jàmbaar la gaynde la. waaw dóor mu daanu sax dóor bu mu keroog des na yeneen dóor mu daanu wala bëggoo cee boo jàmbaar la daal yal na ko yàlla may combat daal. <laughs> Mor Kankang. Mor Kankang waaw suñu doxee combat problème suñu doxee combat bi. amul gaynde mer la suñu doxee combat bi man pare naa. ku su mel ni Youssou Ndour war na mën a ñëw ñu bëree. Youssou Ndour na ñëw ñu bëree. bu Balla dañoo am benn lii de. dañoo sama benn grand moo ñu tegaloon cent mille. Ah. bu ñu tegalee cent mille maanaam moom ñoo waroon bëri euh, combat boobu noonu ci àndum deux si la ñëwee ma daan ko. kon donc man loolu dafa dafa war a ñëw ñu leeral ko quoi. parce que boobu dafa ruuxoon. Ah. waaw. dafa dafa tàppet loolu. Hmm. waaw. mais lan nga mën ci moom. bëre daan ñibbi. ak gaber bi mu am noonu. waaw man balaa may gën a mën a bëri bëri ponkal. mais seetaan nga combat moog maa ngi woon stade toog. lamb bi yëpp laa décortiqué. gis nga lu ma indi. gis naa lu ma indi. stratégie yu mu teg Mor Kankam fu mu ko egg su ko eggoon foofu dama koy daan. yow mi waaw. maa doo jël avance bi yaa ma a xam. non non may jël avance bi ñëw si salle bi ñu teg ma lu métti ma ñëw daan ko. wallaahi al azim ragaluma fu ma jëm. billaahi. ak mu toll noonu. waaw yow man déggoo ma ne balaa may gën a mën a bëre bëri ponkal. mais bëri waa géej waay coow la. waaw coow la parce que bëri naa foofu gàkku. Mhm. waaw ma teg ko lu métti. combat bi si yéen ñaar ñëpp. waaw métti na suñu ñaar yëpp même si moom la gën a métti. yaakaar naa ne combat boobu moo gën a métti salaam. non am na yeneen yu gën a métti ak caatu waalo. Mm-hmm. waaw métti na mm-hmm. waaw. maag mais Youssou daal yor naa ko Youssou Ndour maa ko ëpp maa ko dàq bëre. Mm. waaw. baax a baax. tey ñu seet sa mbër muy Boy Dakar loo ñu mën a wax ci mbër mi. ah mbër lu ma si mën a wax bëri na bëriwul quoi. Mm. parce que tey mbër la boo xamante ne tey daanaka li mu am ci làmb ñu bëri amuñu ko mun na bëri complet na te ñeme na entraîné leen rek ay cat bi des day toll ay da ngay bëri mais sa doo am ay adversaire ci làmb ñi dañuy daw duñ la bëgg jël parce que xëy na mu jote woon mag yi nga daal parce que ku def 13 combat 12 victoire benn combat sans verdict amane ne champion lo quoi ak boy ak boy Dakar. maa lay ziar. delloo ziar maa lay bëggee. moog booy yi. ay liis. comme combat moog liis. wa mais gars ñu ko don ci xam nga tay ñom ñaar bokku ñu yoon. Mm. liis dafa am yoon bu mu jël ki tamit am yoon bu mu jël mais lamb nak garab la ci kaw lay fekante comprendre nga ñom ñaar essay ni ah lamb nak moy lamb be dakar waaw booy Dakar Mor Kankang promoteur bu ko tëgg doo ko rëcc. yow tey ban promoteur nga bëgg. waaye man de promoteur yi bëri nañ fi. promoteur yi ay ñoom jàmbaar production. ñu ngi tëggal booy. Ibu Laay sama waay la Ibu Laay ci boppam sama waay la tëggal Boy Dakar ak Mor Kankang comprendre ñoom makan Gaston production bëri na ñi war a tëgg làmb maanaam ñoom lamb yi ñuy jël di ko tëggal VIP nañ ko tëggal booy lancé benn message mooy ci combat Laurent Laurent day bëri MMA te bi mooy première fois mu war a dem Lyon bëri ji MMA ñu jël benn jeune mbër te Laurent jamono ji ñu toll nii day dem pour représenter Sénégal te fierté Sénégal la ku ko xool xam ko am fula la ku am jom te yàgg nañu bégal te ñun ñëpp maanaam dañ daan toog di ko seetaan di kontaan ci moom kon bu demee ba am combat bi rek nan fay naar bi xoromam maanaam noonu ko jàppale mu préparé combat am octobre war a bëri di ko ñaanal suñu borom may ko dam di wax sénégalais yëpp combat bi combat pour Sénégal la ni ñuy jàppale équipe nationale di ko jàppale basketteurs yi moom tamit sénégalais la comme joueurs yi sénégalais ay Sadio Mané ak yooyu ñëpp ni leen di jàppale moom dañ ko war a jàppale Laurent di woo gars yëpp noonu ko jàppale di ñaan yàlla sunu borom may ko ndam Laurent bu ragal dara ci kaw ca kanam jaajëf lutte motivation. Dakar waaw ñu gis tamit beneen combat coow li bëri na. daanaka dañuy def signature fi nga xamante ni mooy Gambie muy si diggante Modou Lo ak Ama Baldé boobu komba tamit nan ko gisee yàgg na lool ba am na ñoo xam ne am na ñoo xamante ne dem nañ ba ni combat boobu ku gàtt fan du ko fekkee. waaw loolu combat bu neex la combat revanche la aussi. parce que Ama Baldé baxanam la ci teg benn Modou Lo daf ko daanoon mbapat benn Modou Lo euh, Ama dafa soxla loo xamante ni Modou moom la yor benn tamit waa Pikine dañ ko soxla aussi tamit waa euh, parcelle bëgguñu ko ñàq léegi kon combat boobu noonu combat bu intense lay doon Modou Lo Ama Baldé ku dàq bëre ku dàq bëre c'est difficile de pour ma wax ko de. na ku dàq bëre moroomam <laughs> c'est difficile pour ma wax Ama Balde Ama Balde. mun na bëre trop. mais Modou Lo saay saay bu nekk si moom nekkul ci Ama Balde. waaw bu nekk si Modou nekkul ci Ama Balde. mun na teree Modou Lo bëre. ndax Ama mun na teree Modou Lo mhm. waaw mun na ko teree bëre. ci nan. si kattan. waaw que Ama moo ko gën a féetee xale. bi mhm. nii. Ama gën a féetee xale moo ko gën a intense. Mhm. donte Modou Lo saay saay la xam nga si bëre. waaw ñoom ñaar kan moo si war a euh, bëri li nga xamante ne mooy combat déplacement latéral teg teggi waaw ñoom ñaar. waaw Ama. Ama moo war a def loolu. waaw parce que parce que Modou Lo su sampee góosam bii. dana naqadee daan de. waaw. kon warul taxaw. Ama warul war ko may jàmm. Modou soo ko mayee jàmm rek. mooy loolu. gisoo moom Balla su ñuy bëree du ko may jàmm. waaw da koy xëxëtal rek nekk si bët yi rek. waaw. ko da xeex ñoom ñaar. ko da xeex Modou Lo moom xeexam moo gën a lii mais direct Ama Balde moo gën a kii quoi. Mhm. waaw. mais na ko moytu kor bi quoi aussi. koru Modou mhm. waaw. ci saako yi la ñuy xew wala digg bi. loolu moom <laughs> mënu ma si wax lu bëri quoi. Mhm. waaw parce que géntaguma ko quoi. waaw géntaguma ko saa yoo ko géntee rek naa leen ko fokaal. <laughs> waaw incha allah combat bi dina yàgg. non fooguma ko de. parce que dañoo xiifande quoi. waaw combat bi du yàgg de. non non. mais bu yàgg avant du yàgg. bu yàggee ñoom ñaari mbër yi. avantage kan la Modou Lo. Modou Lo la. nu muy gën a tàngee noonu lay gën a liyee. ku ëpp koof. Modou Lo. moo ëpp koofur. moo ëpp koofur de te Ama Baldé xam nga ak lu may dégg ñu naan xaw ma xolam bi affaire yooyu noonu si nekkee loolu réalité la Modou Lo moo ko ëpp koofur quoi. Mhm. Euh, ñoom ñaar kan mooy bëree nga sentir sa bopp. Modou Lo. ndax parce que dama dama siy xool sama bopp ko njooluma yoruma yenn taay mais sañ-sañ bu mu am bu mu bu mu am moom laay xool ci moom quoi. waaw. bandi géew. bandi géew Modou Lo. lu dafa bandi géew bandi koy ñëpp Modou Lo lañ ko xamee. ama bandi la waaw bandi la ama bandi diggante moom Malick Niall am sañ-sañ léegi affronté gars yi. waaw depuis lii boobu noonu ba léegi dafa am sañ-sañ. waaw te sañ-sañ boobu soo foog bàyyiwu ko. Mm-hmm. combat bi mooy moo tax muy gaaw. Mm-hmm. côté ñoom ñaar bi. ñoom ñaar gis nañ ñoom ñaari mbër yi dañoo mystique boobu tamit. waaw Modou Lo mystique da ko doon jaral xaw ma nag léegi Ama Baldé mystique bi daf ko jaral parce que dafa soxla roi des arènes lépp lu mu am da koy def pour jël roi des arènes waaw parce que Modou Lo toll na moment boo xamante ne am na yenn yoo xamante ne mënatoo koo def ci làmb waaw parce que âge bi xam nga te àdduna tamit xam nga fan yi fan yi kenn xamatul na lay demee moo tax yenn lii yi doo ko mën a def defati ci làmb quoi waaw mystique bi waaw mystique bi mooy am na yoo xamante ne yoo xamante ne soo bëggee gagné combat foog nga def ko waaw xan xaw ma xaw ma ndax xam nga li may wax bu baax am na yoo xamante ne soo bëggee gagné mm-hmm. foog nga def ko te Modou Lo toll na dynamique boo xamante dañoo waxoon bàyyi na lamb ibaadul ak noonu te loolu noonu su ko indiwul mm-hmm. dina doy waar trop mystique bi koy waaw da koy jaral foog mu jaral la ko waaw mais léeg di nga ñëw ba si jour lamb ji indaale li nga xamante ne mooy ndam ñu dëpp ko wala waaw loolu am na mm-hmm. sama diggante maag euh, Ronaldinho dama naroon ñàkk de. Hmm. waaw mais sant ah, mais sant yàlla <laughs> soo gisee combat bi nu mu demee sax nga xamante ne sant yàlla rek. sarax si waaw. ak yenn ak yenn affaire yoo xamante ne mooy loolu. waaw dañoo demoon ba tolloo si ay mystique. waaw moom tamit jàmbaar la Ronaldinho di ko masawu tamit si euh, mbëkk mu demoon bi. mais di ko masawu bu baax a baax a baax maa ngi doon ut euh, lijjante numéro am bu bu nekkee foofu mais jotuma ko woon. mais comme que ñibbisi na léegi alhamdulilah quoi. waaw di ñaanal tamit Laurent parce comme que suñu drapeau lay yóbbu. waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. si barke Seydina Mohamed Laurent Ndiago. suñu waaw mais MMA la tamit na xam ne tamit du mbapat. Ah. Laurent du mbapat de <laughs> waaw ga fatal fee bu gaay bu dóor. moo ko yaa ko fa am nag. ndeysaan waaw maa ngi lay kontaanee si sa disponibilité. waaw di la di la di di la kontaanee. Mm-hmm. yaa caméraman bi. xës waaw di leen di leen bëggee bu baax a baax aw ma seen fay. parce que saa waay dama ko vocal rek mu ne ma pare parel ma na ko amul benn problème waaw di siyaar gars yi yëpp di siyaar junior jaxate junior jaxate di ko wax maa ngi lay déglu bu baax a baax a baax dénk naa la sama bopp aw ma aw ma waaw lépp teg naa ko sa loxo junior jaxate ñu ngi koy wax papa jaxate waaw borom borom USA waaw di ko gërëm bu baax a baax a baax sama grand pa Abdou Diop aw ma fayam di ko ñaanal yal na ko yàlla fay yàlla bàyyi ko fi lu wér a wér ak soxnam faatu di leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram waaw di ñaanal tamit wa bitim rew bayuma kenn sama cousin yi nek fofu ñom Abdou waaw bayuma len ben yoon waaw sama nijaay ñu nek fofu waaw ñom Bala Sankara aussi tamit ma len nuyu waaw kep ku nek bitim rew rek ma lay siyaar ñom sang sang ma nga koy bu baaxa baax waaw ak ñom Ada fas bu nek etats euh, unis ñom euh, ñom Diba bayuma len ben yoon waaw di bege ñep bayuma kenn ñom Modou sañan sama gaay yep ñom Aba ñom Laminar ñom Maris ñom Matar am seen fay di len beugé toujours rek jaajëf.